aousubillahi min asheytani irajim bismillahi rahmani rahim wassalatu wassalaamu ala rasulillah wajal kalaami rasidan wa mursida wa fikrati nawwir waxal bi arshida mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax te di leen eh, ziare waaye di jiital eh, ci nuyoo bi ak ziar bi Cheikh Mouhamadul Muntaxa Mbàkke di ko ñaanal bu baax suñu borom guddal fanam te wéral ay cëram bu baax a baax mbokk yi ni ki noonu la ñuy jaajëfal képp koo xamante ni yaa ngi ñuy topp di ñu topp ci Touba Vision saa su nekk moo xam ci réew mi la ak ci bitim réew ñoo ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziyaare te jii Touba Vision ñëw fii ci Mbusoobe ci màggal gi nga xamante ni tey jii ñu ngi koy amal fii ci Mbusoobe di ci fàttaliku kenn ci jàmbaari lislaam ji di Serigne Mbusoobe doon doon wayjur ci Serigne Touba Seexuna Ahmadul Xadim kenn ku nekk xamoon taxawaa ci yoonu lislaam tey ji nag mbokk yi bàyyi ko fu nekk ñëw fii ci Mbàkke ngir fas yéene fee dundal li nga xamante ni mooy màggal gi xam naa incha allahu rabi nii rek lañ koy woyee lépp loo xamante ne tey jii am na fii ci màggal gi nga xamante ni ñi ngi koy defal Serigne Moussobe fii ci Mbacke Touba Vision comme ni ngeen ñu miinee rek ñu indil leen ko kon xam naa dañuy dugg ci biir rek fas yéene diktal leen ay kaddu yoo xamante ne dina bàyyeekoo ñenn ci bokk yi nga xamante ni wala ñenn ci njaboot gi incha allah rabi ñu fàttali leen tuuti rek kan mooy Serigne Moussobe jërë ngeen jëf euh, mbokk yi ba tey comme niñ leen ko waxee rek ñu ngi fii ci Mbusoo bi bërëb bu tedd boo xamante ni comme niñ leen ko waxee rek doon na taarix ci li nga xamante ni mooy yoonu Murit muy bërëb bu sëriñ Mousso bi macha allah ngeen gis ne bërëb bii nga xamante ni mbokk yi fi lañ taxaw ba tey mu doon bërëb bu laab boo xamante ni gis ngeen garab gi ñu gis suñu ginnaaw fi la ku tedd ki sëriñ Tuubaa Seexuna Ahmadul Xadim taalifee téeram boo magam boobu di Masaalikul Jinaan waaye laataa loolu rek ñu ñëw ci sëriñ Abdou Lahad Bousso Maassa mu wax leen rek ci jëmmi ki nga xamante ni tey jii moom la ñuy fàttaliku mu doon koo xamante ni jàmbaar la woon ci li nga xamante ni mooy diine l'islam mu doon koo xamante ni kenn dootu ko fàtte te xamante ni jëf na ko ci digganteem ak jarbaatam bii nga xamante ni tey jii liggéeyam daj na àdduna muy Seexuna Ahmadul Xadim macha allah sëñ Ablaat xam naa ñu ne ci tënk rek buñ fi doon waxtaane sëñ Mbusoobe ay waxtoo ki ay fan du tax mu jeex waaye ngir ñenn ci ñi nga xamante ni it ñoo ñuy bàyyi xel gën a fàttaliku jëm ji nga xamante ni tey jii moom la ñuy màggal fii ci Mbusoobe ak it gën a jariñu ci moom ak dëgg-dëgg ci lenn ci barab bii ñu taxaw sëñ Ablaat ñu ngi lay sant baax di la gërëm di nuyu mbooleem auditeurs yi nga xam ñu ngi seetaan ci Touba Wisso di sant yàlla bu baax bi ñu may ñu fekk waat jataay bi nga xam ne moom la ñu defaat fii ci Mbusoobe di barab bi nga xam ne moom la Serigne Touba rafaatale woon nijaayam jooju di Serigne Mbusoobe ku ne xam na ne Serigne Mbusoobe mi ngi nekkoon naaweel ak maam Astawaalo yàlla dogal mu nekk fa ginnaaw bi maam Astawaalo wàccu liggéey Serigne tubaa sàkku ci moom mu ñëw ci Mbàkke jege si ko ndax ne ko mënumaa sore yow ci diggante bi. di yomb ngay baggante wala may bàggante bi Sëriñ Tuubaa yónnee ndaw sàkku ci moom loolu Sëriñ Bousso bi daa kay nangul daa di wàcc daa di ñëw daa di fekk Sëriñ Tuubaa fi bi mu ñëwee Sëriñ Tuubaa kër gi mu dëkkoon daa daal di kër gi rafaatale ko Sëriñ Bousso bi daa di dem sañ ci Daaru Salaam barab bii ñu toog nii garab gii Sëriñ Tuubaa fi daa toog daa fi tëëlig Masaalikul Jinaan ànd ak doomi Sëriñ Tuubaa doomi Sëriñ Bousso bi di Sëriñ Mbàkke Bousso di ko fa tëral Masaalikul Jinaan kon mel na barab bii ñu toll noonu la dem Sëriñ Bousso bi nag mooy ki nga xam ne mook soxna Jaara Bousso ñoo bokk lépp sëriñ bu soobe moo mage woon fukki ak ñeent jëm noonu moom la mage woon sëriñ soxna jaara moo ko magoon euh, yàlla dogal tamit yàlla dimbali ko tamit mu doonoon ku teel a gis sëriñ tubaa ku teel a xam sëriñ tubaa ndax sëriñ tubaa waxaan na ci nii ay nit ñi sëriñ bu bi da jëbal na ma njabootam gépp ba ma nangul ko ko mm-hmm. koo xam ne nag teel ngaa gis sëñ bi teel a dund sëñ bi ba li nga am lépp nga teel koo def ci sëñ bi teel a jaayante tamit ci ci ci ci li tax sëñ tubaat jóg nga fas yéene loo mën nga def ko ci ngir sëñ tubaa loolu mu bëgg mu am ko kon ku teel a gisoon gis-gis bi la ba tax na sëriñ tubaa def na ay way yu bari ci moom boo xam ne mi am na boo xam ne sax Muhammad Muhammadu Buso la ko tënk tam mi ne mu tëji xuraan silence mawlaahu waaye wax ci wax yu am solo sor solo solo sëriñ bu bi moom sëriñ Buso bi moom nag nga xam ne yàlla dogal na xëy na ñi ngi koy fàttaliku fii ci barab bii di fàttaliku wàlle nag tey jii ci kilifteefu bàyyi sëriñ Buso bi bagaaj moom sëriñ Masamba Faati di xalifu sëriñ bu ku ne xam ne ne ay magam yëg fuutu woon te néegi daaw rek ñu fàttaliku ci wàllu sëriñ Ceerno bu soobe nga xam ne mm, aswaalo xam ne moo doon xalifu sëriñ bu soobe te ñu ko fi doon fàttaliku ni ngeen daaw di xam ne ñoo doon taxawu màggal gi at yi ñu yeesu sëriñ bu soobe moomu nag yàlla dogal mu sañ ci woon barab bii doon ku yàlla rus sëriñ Tuubaa waxoon ne moom du ko yàlla rus la ba tax na nga xam ne bi mu fi jógee ba mu fi jógee léegi yàgg na ndax sëriñ bu soobe bokkoon na ci dem bi sëñ bi dem ci géej gi xalwa bi mu defoon bokkoon na ca benn fokk nga génn Tuubaa ndax da ngaa ñaanal suñu aaral la ko baneen bi tamit fokk nga fokk fokk sa nijaay jiide moom natt bu la na tege dana ñaan ñu tege ko ndax dafa am xeebam tif ci yow te yow la nga war a am ci natt nga am mhm. Sëriñ Tuubaa ci xal ci koor gi la ci koor gi Sëriñ Tuubaa waaj dem sëñ ci Mbàkke Bari Mbàkke Bari bañ fa jógee ñu koor ga sëñ bu soobee loolu waajtaay biñ tëbaskee ba bis bi del si sëñ bu soobee wàccu liggéey kon nga xam mi ngi wàcc liggéey euh, mille euh, mille huit cent mille neuf cent mille huit cent quatre-vingt-quinze mille huit cent la wàccu liggéey nga xam dafa wàccu liggéey fukki fan juróom-ñaar tabaski bis ba del si muharram safar sëñ Tuubaa dem ci liggéey bi na ci am fii yaa ngi fi am nga yëg loolu nga waa joxe sa bakkan kon sëriñ Bousso moo njëkk joxe bakkanam ci yoonu sëñ Tuubaa ngi liggéey sëñ Tuubaa am bakkanam bu boobu bu rëy boobu nag moo tax baneen bakkan desatu ca kon sacrifice yi na lu ne nag ngir sëriñ Tuubaa sëriñ waaye la tee mu dem sëriñ Tuubaa ko yebal sëriñ Matar Penda ni ko demal waxtaan ak moom ba mu demee sëriñ Matar Penda daal di wax ak sëriñ bi ni ko ah yow de sëriñ bi ndam nga ndam nga lu ñuy sukk boo toogee say mbokk jàmbur yi xaaraan si soo demee say mbokk xaaraan si sëriñ <laughs> Tuubaa daal ñëwaat sëriñ Bousso ni ko yebbi waaye sëriñ Tuubaa dafa naroon tëj ja di dem su boobaa tamit comme lu baax gaa yi baax daa def nga xam ne nga jékki-jékki dem waaye kon nag loolu sëriñ Bousso bi defal ñu ñu taxaw ñun ñu am nañ njukkal am nañ war war bari ci delloo njukkal sëriñ Bousso bi ko fàttali mm-hmm. ba njabootam yëpp mu jëbbal leen sëriñ Touba loola lu rëy a rëy la ndax njabootam yëpp sëriñ Touba sëriñ Touba daan sëriñ Bousso bi lu mu ma jox ndam lu sëriñ mm-hmm. Abdoulaye Bousso Muxtaar la ca a allah jërëjëf sëriñ Abdoul Ahad Bousso Maas ci kàddu kàddu yu matala yooyu mbokk yi yaakaar naa kàddu yi mu yëkkati tey jii kenn ku nekk ci ñun jëlaat nga ci tomb waaye ba tey ñu ñëw ci sëriñ Abdoul Ahad Bousso Makhtar semblaat mu mel ni dégg nañ fi sëriñ Abdoul Ahad euh, soo yëkkatee daanalee mu doon kàddu yoo xamante ni ku ko dégg di nga ko rafetlu waaye ba tey jëmm ji nga xamante ni tey jii moom la ñuy màggal fii buñ ko doon waxtaane ay fan ak i weer du tax mu jeex ngir jëfam ci yoonu diine l'islam waaye rawatina ci digganteem ak suñu yaakaar tey di sëriñ Touba Seexuna Ahmadul Xadim tey loolu nga xamante ni sëñ Abdou Lahat eh, tijjee na ko wax ko te mu doon kàddu yu am solo sëñ Abdou Lahat jërëjëf ñu ngi nuyu bokki jullit yëpp di nuyu bokki taalibe yëpp di sant Cheikh Abdou laxaat ci kàddu yu rafet yi nga xam ne wax na ko léegi sëriñ Bousso bi dafa nekk jëmm joo xam ne jëmm ju am solo la ci yoonu mu murit ndax eh, yàlla dafa def muy wayjur ci sëriñ bi ndax moom wayjuram soxna jaara ñoo bokk ñaari wayjur ni ko sëñ Abdou Lahat waxee yàlla def itam muy ko koo xam ne ak njabootam gépp daf leen teel a jox sëriñ bi ñu nekk ay ansaar ci moom nekk ñoo xam ne dañ koy jàppale ci wooteem bi nga xam ne mu lay woote mm-hmm. ginnaaw nag bu mu leen tàggatee tàggatee mu am solo ci ñaari mbir benn mooy ak njàmbaar njàmbaaruk yaram ak jëmmu muy njàmbaaru physique ak njàmbaaruk xam-xam mm-hmm. sëriñ Bousso bi dafa bindoo woon noonu am na ko ko doon way eh, ci ay jamono wax ne jamaa sajaata wal qudua li rabbihi ma ahsana al mihraba fi l mihrabi sëriñ bu soobee day ñaari nattukaay yi foo ko ci natt rek boo dikkee fekk mu fees dell place ba boo ko fekkee ci kaw mihrab bi muy muy xutba nga ne moo man ci imaam yi waaye boo ko fekkee ci tollu xare muy xeex itam nga ne général la boo xam ne du daan loolu sëñ Tuubaa wax na ko ci biir xasiidaam gi muy wax ci gim tënkee Mouhamad Bousso googu sëriñ bi doon wax léegi ca xarfu daal ga damuurul ida inda alwaqa tumma mukrimun li ahli tuqa hada mudaahin musammaahu mu ne euh, moom day boo ko fekkee ca noon yi mu a faagaagal noon yi ci mu gën a mën a xeex kuy xeex waaye boo ko fekkee ci ñi ragal yàlla moo leen gën a mën a teral booy seet ki gëpp teranga ëpp war ma gën a mën a teral borom xam-xam gën a mën a tegal ku ragal yàlla xoolal sëñ bi waaye booy seet ku gën a mën a toroxal am noonu yàlla itam xoolal sëñ bi mu ne lii nag turandoom wala ko nuru di sidna Muhammad alayhi salaatu wasalaam kon kooku jëmm la joo xamante ne bi ju mat di bàyyi xel la ku ko am ku nekk war koy fàttaliku ñaareel bi itam bu doon loolu lépp itam seere si ko suñu borom seere ci ci Serigne Touba rek doyoon na sëkk sa nijaay jii di Serigne Moussa Bari ku ma jege la te ku man ñaanam la te xam naa yërmande jum am ci yaw joo xam ne du seetaan mukk natt yu mel nii dina dal kon lii mënoo koo am li fi yëg bakkanam ngi dund waaye moom yàlla na noonu ko yàlla eh, seere Sëriñ Tuubaa mu xam loolu cala joxe bakkanam nag ngir liggéey bi mën a am ginaaw bu mu jëlee njabootam gépp la tàmbalee ci taawam Serigne Cheikh Bousso nga xam ne xëy na bu magul sëñ bi tuuti itam sëñ bi ko magee dara lu bari ba cim caatam si no Omar dégg jëbbal ko Serigne Touba da door fay jógee moo tax Serigne Touba def daan wax ne Serigne Bousso bi de moom mm, jëbbal na ma njabootam gépp waaye ay ndab la ma jox xam ne daf ko raxas ba mu duy rek moo ci fa. xam ne euh, kooku noonu la bindoo woon kon mu nekkoon itam borom xam-xam bu mag àndoon itam ci xeex bi nga xam ne mag ñi àndoon nañu ma Maba Jaxu xeexe woon ko Saalum ba mu nekk eh, Saalum itam mu nekkoon imaam ja nekkoon itam général wax nañu ne kere bi ma badi daanu euh, yàlla dogal nañ ñëpp dem nañ làqutu ji ndax xam ngeen ne xeex su àggee dana àgg foofu kenn ku nekk da ngay euh, soowe sa bakkan moom moom moo taxaw ba jël maba te lu jiitu muy dem xamaloon na ko ne ko ne tey jii bés tey boo demee du baax da nga faatu maba xam la ne jël na engagement ba wax ba noppi kon du dellu gannaaw te xeer xare la taaloon te xare euh, daanu ca ku ne xam ne ne ku ko def shahid ngay doon martir ngay doon kon loola moo tax mu dem waaye ba mu demee itam ànd naag moom ci ngor ba mu faatu mu defar mu jël ko defar ko def lépp ba delsi wax nañ ne keroog ñi dikk ñëpp dañoo wax ma wasaal na ko sëñ bu des na ci xare ba ngir luñ ko tuur ci ay ball yu bari waaye macha allah xam na ne moom du koy des ci xari na ko fekkaat fi wax nañ ne moom excès ba mu summi ko li génn ci yaramam ci ay bal kenn xamul nu mu toll ci ay yéreem ci ay bal kenn nu mu toll kon ku amoo ku jege woon boromam la waaye ku jàmbaare woon la itam ku participer itam te ci taxawaayu lislaam fii ci Sénégal kon ku mel noonu suñ ko dee fàttaliku laaj na euh, ñu bokk ci moom laaj na ñu di ko fàttaliku rawatina ci ay ñaan. ndax sëñ Tuubaa waxoon na ko ci xaside gi nga xam ne moom la taalifee woon fii ci barab bi ñu nekk mm-hmm. te bi mu koy taalif doomi sëñ Bousso bi moom mu la àndaloon muy alxaaj sëriñ Mbàkke Bousso mi ñëpp xam taxawaayu sëñ Mbàkke Bousso ci yoonu lislaam ci yoonu murid rek firndeel na taxawaayu sëñ Bousso bi waaw ak waxuma sax moom ak yi nga xam ne ñoom la ko seqal ñëpp waaye ni mu demee ak sëriñ Tuubaa na liggéeyu sëriñ Bousso bi ci yoonu murid mm-hmm. xaside googu di di di di Masaalikul naan sëriñ Tuubaa waxoon na ci ne di yenn yanfau mayitan fil xubur wa yanfaul xayya wa yujibul ujur ñaan day jariñ ki gën àdduna nekk ci biir bàmmeelam di jariñ kiy dund di dolli ay tiyaaba ay pay pay yàlla kon nag moo tax ñu sàkkal ko bisub ñaan te bu fekkoon ne kenn ëpp na ñaan yonent bi alayhi salaatu wasalaam ëpp ñaan te boo ko tuddee rek faaw nga ñaanal ko alayhi salaatu wasalaam googu nga wax rek ak ñaan la kon képp ku baax ku nekk lañ koy fàttali ko mooy ay ñaan ñaan yi nag dara jiitu ci jàng alquran jàng xasida Sëriñ Tuubaa yi fàttaliku ko delloo si suñu xel ci jikkoom yu rafet yi nga xam ne moom la amee woon ak melam yu rafet yi nga xam ne moom la amee woon ak njàmbaar gi nga xam ne moom la amee woon ak bëgg gi mu bëggoon lislaam ak jàppale gi mu jàppale Serigne Touba ñu fàttali ko ne Serigne Touba bi mu uh, ganee àdduna ab diir moom la ko way juróom jox bokk na ñu ko njëkk a jàngal kon daal ay taxawaayam ci sëriñ bi mm-hmm. yaatu na bari na jox na ko itam ak njabootam góor ak ku xam nga ni mooy waajuru soxna Awa Bousso mi waajuru Sëñ Fallu mooy waajuru soxna Aminta Kanni mi waajuru euh, Cheikh Abdoul Khadir ak yeneen ci ay njabootam yoo xam ne yàlla dogal na jaaroon nañ ci biir këram euh, xëy na seen njaboot dafa dafa dafa dundul moo tax mënuñu ne mënuñ si ko wax waxe ni ñu ko waxee ku mel ne soxna Anta Bale ak ñu demee noonu moom waaw ah, gi njaboot gi ñoo koy def njaboot gi nag dafa lëkkale ñaari njaboot boo xam ne day genn muy njaboot sëriñ bu Sobe ak Serigne Saa bu so mag ak rakk lañ ñoom ñaar la seen waajur am ci ay doom yu góor ñu bokk nag ak soxna jaara ak soxna mati bu so ak soxna xuja bu so ndey ak baay soxna mati bu so moo jur sëñ malamin mati ñang ak sëñ jogu mati ñang sëñ euh, sëñ jogu mati ñang moo jur sëriñ baara ñang mi nekkoon gede sëñ malamin mati ñang mati ñang itam moo jur sëñ jogu ñang ma nekkoon tiwawoon ak i bokkam yu góor ak yu jigéen Euh, soxna xujje itam moo jur soxna xujje Sylla mi nga xam ne moo jur sëriñ Ibra xujje moom sëriñ Mandumbe waaw nga di soxna jaara mooy indi xaadimu rasul ak sëriñ moom moom soxna jaara moom sëriñ Bousso bi mii nag mooy seen càmmiñ euh, seen njaboot nag njaboot sëriñ Bousso bi ak sëriñ saabu so ñi nga xam ne ñooy càmmiñ ñoo ñu ma wax léegi ñoo àndandoo takku nekk wenn say boole seen bopp ngir sàmm seen ndono li nga xam ne moom lañu am te mooy ndonol lislaam lii di ndonol xam-xam di fas ko yéenee dundal fas ko yéenee sàmm ni nga xam ne noonu la ko seen maam yi euh, fago woon muy mbooloo moo xam ne la leen boole mooy jàppante xamante dimbalante jàppalante ci lépp loo xam ne nii njaboot gi song nañ ko bokk na ci seeni taxawaay mooy euh, former njaboot gi ci xam-xam jàng alquran def taxawal ay daaray alquran taxawal ay daaray xam-xam ba njaboot gi ndono li ñu amoon ci wàllu alxuraan xam-xam bañ leen rëcc beneen bi ci des itam mooy jokkaloo gi war ci diggante bokk yi mën a am bu nam mu war a amee leneen la ci am itam mooy seen seen taxawaay bi nga xam ne moom la seen i maam yi taxawoon ci wetu Serigne Touba ñu mën a wëy di ko sàmm di ko doxal te loola la koy may mooy ñu tënku ci ab yar tënku ci ay tëng tënku ci xam-xam xam seen bopp xam fi ñuy teg seen tànk ci ak njub te loola nag jàppalante ak dimbalante ci baax baax bokk na ci la leen koy may leneen la ca des tam mooy di demlante ak di dikkalante lu am solo la loolu moo tax ñu taxawal ay eh, ay ay tuur yoo xam ne dañ koy def ci eh, njaboot yi dañ ko daan def bax par nit waaye léegi dañoo gis ne def ko par njaboot moo ëpp solo ñu seet ñaar ñooñu seeni njaboot kenn ku nekk di ko aaye bu ko aayee njabootu kër gi gépp ànd daje ci genn kër recevoir mboolem bokk yeneen yi ci des yëpp ñu fekk si leen ñu daje fa waxtaane seen bokk waxtaane seen diine jàng alxuraan ñaanal seen imaam yeeweeku ba weneen weer ñu dajawaat ci kër keneen bokk na ci dem bis bii nga xam ne su accès li ëpp ci njaboot gi ñu fekk ñëpp dañuy daje fii ñaanalaat suñu ñaari maam yu baax yooyu kon daal ci tënk loolu bokk na ci do yi nga xam ne moom la mbooloo mi di doxe waaw kàddu yu mujj yi rek mooy di eh, soññ suñu bopp di soññ itam mboolem mbokk yi nga xam ne ñoom lañ ko seqal ci askan yëpp nag ndax bi dugg na fu bari njabootam dugg na fu bari ci rawatina nag askanu Mbàkke ak Bousso bi waaye yemul foofu rek dugg na fu bari fu yaatu ci ci ci yoonu murit euh, kon mbokk yëpp nañ bàyyiwaat xel maam jooju nga xam ne suñu borom seereel na ko seereel na ko ci kanam sëñ Tuubaa ne ko mu rus la mm-hmm. ñu fexe ñun tam ba yàlla rus nu mm-hmm. li ñuy fexe ba yàlla rus nu mooy nañ sax ci li yàlla digle di digle tey moytu li yàlla tere mm-hmm. kenn bañ ñu caa seen te di ci góorgóorlu bu baax sunu kem kattan suñ ci defee lañ man la ca des yàlla danañ ko mott leen eh, di soñ ñëpp di xam ne ne buñ fi yandoo jàng alxuraan yandu fay jàng xasida ba ngoon mbooloo mi yëpp dañuy àndandoo ñun ñëpp dem ca barab ba siyaare ji ko ñaanal ko eh, kon nag ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp képp ko ci jàpp ci lu jege ak ci lu sori lépp tàmbalee ko ci Cheikh Mouhamadul Mountakha mi nga xam ne mën nañoo wax ne tey moo jiitu ci sët sëñ moto bi ndax mooy xalifa Cheikhul Khadim di suñu yaakaar ñun ñëpp ba ci sët bi gën a ndaw ñépp ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm di leen séntu na gën a déwén itam di ñaan ñëpp teewaat fi na gën a déwén kenn bañ a manqué wasalaamaaleykum wa xam naa suñu abdulaat euh, ma sa kàddu yu mujj yi rek bu ko defee ñu mën a ànd ak mbokk yi doxantu dem ba ca barab ba ziare ko dëgtal ko mbokk yi nga xamante ni ñoo ñuy topp ci Touba Vision ci réew mi ak ci bitim réew waaw ah, jërëjëf sant yàlla baax barab boobu nga wax sax xam naa naa ci tënk ndaxte kilifa gu mag wax nama ne bi sëriñ bu sa wàccub liggéey fekk sëriñ Touba Mbacke euh, Bari sëriñ Touba fekk bi mu ñëw di jàll bu Bousso bi mu dikkee ba jub Touba dafa tegg ca kaw ñëw ca barab ba ndax boobu fekkoon na moo génn Touba gi yaayam dem na mu koy jàll si dégg naa keroog ba mu ñëwee ca barab ba ban la mu fa doon jàng waaye ne bokk na saar mu fa jàng wanaa sixaati kon mm. xam naa ko dem ca barab ba tamit dana baax lool saaroo xam naa tamit euh, toxfatu di xesi dik sëriñ Bousso bi ndax sëriñ Bousso bi dafa am tur yoo xam ne da doon sàkku sëriñ Touba mu woyal ko ko Euh, yi mu daa jëfandikoo Sëñ Tuubaa wee ko ci toxfatu boo gisee ci toxfatu boo demee ba ci biir Sëñ Tuubaa ngay wax wala yu jud wala la si daxaan yi lenas mm-hmm. mihi bil am ni waridwaan yi di ñaanal ki nga xam ne moo sàkk moo moo moo mooy mooy xasida gi boobu sëriñ Bousso moo sàkk woon sëriñ Touba moo yel ko loolu ngir gis-gis bu sëriñ Touba amoon ci moom kon noonu la ñu toogee fii wa rahmatullahi wa barakatuh am wa rahmatullahi taala wa barakatuh mbokk yi xam naa dañuy wéy rek ak yéen suñu yéen wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.